ma Mambay Ndiaye fëll buntu bureau bi rek daw si dugg si na ma Evelyne jógal Ndiaye dos ñu ngi nii ñu ngi koy andi il va pas bien daw sil ba may jóg ne damay daje ak Ndiaye dos ci buntu bureau bi laa taseeg moom mënuloon dox ñu ngi mu ngi jël benn fulaar wërale ko kanam gi yëpp on voyait même pas le visage Ibra Fall moo ko téye ak sibo ma jóg bàyyi ko mu toog sama chaise mu ngi ànd ak rakku pàppam bi nga xam ni xaritam la ndax ñoo tolloo ñoo yàgg nekk ma bàyyi ko ba mu toog ba noppalu ma commencé di ko sëpp ma ne ko Ndiaye Dos je t'avais dit boo soxlaa un papier wala nga soxla benn signature wala prologement Ndiaye Dos wooteel ñu defar ko soxlawul ngay déplacé wu di ñëw ci sa état parce que nit ñi buñ la gisee seen xel dina ñaaw éviter nit ñi gis la nii Ndiaye Dos ma sëpp ko lu yàgg mu sëgg sëggiwul xool ma. Moussa Fatou waaw daal ci rajo bi ndeysaan moo ma tàggeel démb sama yaay bi mu gaañoo dama ko message mu tàggeel ma ko. ndeysaan ameti jékki-jékki magam di keroog bu ñëw. mun soo koy tàggeel. ndeysaan ta nga dikk it amet dee ñu tàggee ko ñetti rek am. dina yéex dañ koy ragal dañuy ko wax. wallaay waaye loolu ala kulli ñu njëkk a sàkk sàkk fi am de di nga tàggee ñu tàggee la waaye dinañ la tàggee Modou Ndiaye Doss yàgg naa tàggee yàgg naa deele it du ñëw ñu ne Doss dafa am dëj ñu koy tàggeel tey moom lañu ñu tàggee yàlla tey Mame Mbaye Ndiaye nee naa ko. yàgg dootoo bokk ca métier ma parce que yow mënuñu laa jàppee ne léegi ab simple waykat dongo déedéet fu lu ne cëpp ah. nit ñëpp dañ naan diwa nga uh-huh. dootul way ba déedéet moom nu ñaay doos nag daa dem ba yegg foofee ci métier ma dépassé naa affaire cadre journaliste kii ay nangam sana yàgg naa sonal kër gi alaaji doos génn na àdduna ci jamono a xam commencé woon bisub samedi bi alaaji mm-hmm. juróom ñaar fukk